bëggee bu baax a baax yéen internet Leewtoo TV ku ci nekk turam ak santam yi ñuy topp fii comme démb gouverneur bi génn na da joxe arrêté yu bees nga xam te ne nii combat yëpp dañ ko reporté ba ultérieurement feebar bu gën a wàcc tey ji nag man sama équipe dañoo wàcc terrain bu fas yéene xool waxtaan ak nit ñi naka lañ gisee boobu la dogal bi laa la ñuy topp dañu daal dugg fii nii waxtaan ak gars yi xool kan la kañu double moteur lañ nekk dégg nga. waaw soxna si ñu ngi leen bu baax a baax. waaw di rafetlu seen teewaay fii nii xam nga dañu am naqar ñun ñëpp am lu ñu metti bu baax a baax a baax a baax ndax ay jeunes lañ nekk si benn quartier am suñu benn yaakaar boo xam ne mooy yaakaaru quartier bi yëpp mooy suñu mbër double moteur. combat bi taxaw depuis daaw ñu préparé ko préparation mu métti mu voyagé si ñaari yoon dem génn extérieur financé xaalis bu dul jeex ñun supporters yi ñu kolo kolo suñu xaalis lépp lu ñu am ñu côté côté ko si combat bi def suñuy banderole def suñuy lépp boo xoolee asiko yaa ngi yu jot a pare ñu defar yeneen yu bees. ak leneen ak leneen loo xam ne sax surprise la ñu naroon yëngal la 15 jours ba mu neex def lépp préparé suñu xaal ñun supporter rek suñuy million laa la wax lu ñu dajale koloo koloo ko suñuy junni junni suñuy 10 000 10 000 pour jàppale ko mbër bi rek def nañ si suñuy million waxuma la nag mbër bi lu mu ci def dafa dem ba dee yaa ngi comprendre ñëw à quelques jours quelques jours ñu ñëw nañu affaire yi annulé nañ ko te mbër boobu noonu soutien de famille la benn famille entière moo nekk si ginnaawam reposé si yaakaar ko ci moom moom mooy joxe dépense si gàlle bi di def lu léegi tey jii ni buñ ko xañee bëre léegi kër googu noonu kan moo la ñuy jox lekk Macky Sall est-ce que mooy ñëw di ñu jox lu ñu lekk wala di leen lu ñu ñaan xam nga lii nii wul maanaa barki démb rek coupe du Sénégal am na jaraaf joué na ñu nangu loolu noonu barki demba gars yi yëpp activité yëpp ñu koy déroulé normalement mais bu ñëwee ba ci làmb ji rek foog ñu indi fi ay faay yoo xam ne tey jii nii comme si ñoom làmb dafa am muy def wala lu mu lu muy yàq wala lu mu dul yàq te lamb mooy suñu sport national yeneen sport yi ñu gis nii ni yëpp dañ ko jëlee si ay yeneen rek mais suñu sport national lamb la ñun si double lii lañ yaakaar suñu champion xoolal suñu banderole yi drapeau yëpp tax nañ ko defar nañ de près plus de vingt drapeaux yoo xam dañ ko doon caq ci rëbës bi yëpp plateau bi fii ba Sandaga ba Cap Manuel ba Médina Fass Gueule Tapée Colobane waajal suñu caravane boo xam dañ doon wër Dakar bi yëpp pour ñëpp jàpp ci combat bi ñaanal ñu mbër yàlla may ko ndam ñun double moteur mooy suñu Balla Gaye mooy suñu Yékini mooy suñu lépp moo ñu gën a suñu bakkan barki alxuraan bu ñu laajoon suñu bakkan pour mu am ndam lañ koy def moo ñu gën a lépp moo tax gis nga da ngeen ñëw rek ñu génnee lépp woon leen mais Macky Sall foog mu respecté nit yi respecté sénégalais yi ndax fu mu toog nii ñun ñoo ko fa teg man tey jii ni élection bële la la passé 2012 bokkoon naa suñu ko votel donte maa ngi koy rëccu nag tey bu baax a baax bii passé bokkaatoon naa suñu ko votel barki mais rëccu naa ko heure la wax ni ma votel moo ma gënal ma votel Macky Sall ndax ñun lamb la ñam mooy suñu sport national mais tey jii dañuy xool comme si ñun Macky Sall bëggul lamb wala ay kiiwam bëgguñu lamb ndax dama gis ni décision bi si moom la jugee quoi bu ñu nee gouverneur ak yooyu noonu yëpp si moom la jugee bu bu neexul Macky Sall du am naka lañ mënee bàyyi yeneen activités yi di dérouler normalement tey jii ñu ñëw si lamb ñu bëgg ñu ko xañ lamb ji mooy deux moo ci des mooy de un mois matatul sax un mois ndax le 29 août mooy dernière a am ci saison ren bii nii mooy guy gi ak kii nii à weekend bii samedi dimanche bu amoon double moteur mooy ñëw bëri le 15 après le vingt le vingt neuf làmb ji jeex na un mois mënoo leen ko may tey jii ni ñu dérouler suñu activité normalement respecter mesure barrières yi yaakaar naa ba pare nii même bu ñu limiter nombre de personnes sax ñu limiter ko mais imagine nit préparer combat plus de deux ans ñëw ba mu des ay quelques jours tey nga xañ leen ko xoolal dimanche bi passé ni ñu def gars yi xam nga loolu tegul fenn ay mbër yu waajal seen combat def seen regroupement def seen lépp ñëw ba stade am ñoo xam ne déplacé wu na ñëw ba stade am na suñu benn booy booy plateau la fii la dëkk booy plateau da doon fi yoroon bëri moog Laurent booy plateau dafa defar regroupement ñun ñëpp fa lañ añee añ ba pare def lépp ba mu taq ngembam bay waaj a génn bay waaj a génn gàllem gars yi woo ko ne ko combat bi annulé nañ ko loolu noonu naka naka la war a mel léegi mu nar a reprendre à zéro préparé waat combat bu ñu ko programmé waatee sans pour autant que ñoom du ñu subventionné gars yi duñu leen indemniser si dara xam nga loolu tam yenwul maanaa quoi nañ ñu jàppale quoi nañ ñu jàppale ngir yàlla war a suul ndax ñun làmb la ñu am mooy suñu sport national ñun lijjantiwuñu football lijjantiwuñu boxe lijjantiwuñu rugby ñun suñu yaakaar yëpp si làmb lañ ko teg am suñu booy yoo xam ne ñoo nekk si quartier bi comme ñoom double moteur wala yooyu fu ñu yëkkatuñu ñun Macky Sall bu romboon fii du ñu jug mais double moteur bu romboon fii nii ñun lu ñu jàpp ñu bàyyi ko ànd ak moom ñun ñooñ ñooy suñuy star ñooñ ñooy suñuy lépp nañ ñu nekk ñu dooleel leen si quoi mais vraiment am nañ ñu metti ba si kanamu yàlla tooñ nañ ñu yàq nañ suñu xaalis def nañ suñu lépp préparé nañ ba dee xoolal asiko yu bees yu ñu doon defaraat yëpp pour waajal jour combat bi rek le 15 août rëbës yëpp mobilisé wu démb booy fii lañ toog kanam gis si waaw désespoir bu mag a mag a mag démb billaay en tant que supporter waaye en tant que citoyen lan wax mbër bi ak lan ngay wax ñi nga xam te ne ñooy axlu làmb ah waaw mais waaw axlu làmb foog ñu xam seen bopp man moom sama décision personnelle li may wax moom na mbër yu mag yëpp génn ndax lii nii tamit ay acte moo koy faj quoi du ay toog nii noppi nii rek fajul dara foog mbër yi tamit génn ñoom ñëpp woote ñoom ñëpp génn supporters yi génn ñu génn ñoom ñëpp joxe benn jour ñu jàpp ko ñëpp ñëw place de l'Obélisque ndax fii ku fi am lu la metti da ngay génn ñaxtu mais ñoom lu tax duñu mën ñoom Balla Gaye Modou Lo mbër yu mag yëpp woote ñoom double moteur ñëpp ñu ñëw ñu génn defandoo benn say dem plateau bi léegi pour wane ni ñoom non seulement ay sénégalais lañ ay citoyens lañ dañu am ay droit ci réew mi ba pare sport bi ñuy def nii nii nii dañ ko reconnaître nii ci dëkk bi buñ ko mënee nangul football bi nangul ko ñeneen pourquoi pas ñoom foog ñu ñëw wàcc si au moins gars yi yëg leen ñu ñaxtu pour pour une bonne fois pour tout gars yi mën leen jox seen cër quoi ndax boo xoolee joxuñu leen seen joxuñu leen seen cër mbër yi ay dof la leen jàppee ay li loo gis même ay yeneen activité day am feneen sax ay nervi sax ñu ne mbër te yàlla xam na ne mbër yi laaluñu si taquñu si mais mbër lañ joxul cër mais ñoom ñoo war a jóg jug nag tey xeex lii benn yoon pour mu jeex Macky Sall ngir yàlla war a suuli nañu respecté quoi ndax ñun dañu sonn dañu sonn bu baax a baax surtout lamb ji lañ wax lamb ji mbër ay soutien de famille lañ ni mu joxee dépense famille ñoom Marème Faye Sall li leen jox dépense ñuy togg mbër yi noonu la ñuy joxee dépense seen ñuy togg ay ay ñu ay nit yu bëree bëree yaakaar ci ma bi nga quartier bi ñu nekk nii rëbës bii nii bëri na ñoo xam ne ay néew ju doole lañ quoi mais tey ku si am problème lu mu mën a dey xalaatoo kenn da ngay xalaat Double Moteur comme mi ngi ci quartier bi xaar ma dem gis ko dis ko sama soxla mu ñëw au moins ba boo ko diisee dara jàppale keneen ak keneen def noonu tey jii nii bu bëriwul fan lay jëleetul mu jàppalee ñooñu mais Macky Sall mu xam loolu noonu tamit quoi jàppale ñu bu baax a baax a baax ñun làmb la ñam moo ñu gënal lépp foog mu respecté làmb respecté mbër yi ñun kay dañu am lu ñu nakkari moom ba fa dëgg yàlla moom dañu am lu ñu nakkari lool parce que xam nga mbër boo xamante ne rawatina mbër bu ndaw la te jàppale demewul noonu ah gars yi sonn ci def si lu ne mbër bi voyagé di entraîner rey boppam ba dernière minute nga toog ñu ne la làmb amatul loolu dafa metti quoi loolu dafa metti te kii mooy sunu yaakaar quoi te kii dafa bëri ñoo xamante ne tey jii nii da di dundal comprend nga ñun mooy suñu lépp billaahi wallaahi tallaahi ñun Double Moteur mooy suñu lépp mooy suñu Balla Gaye mooy suñu Modou suñu lépp billaahi mais président daf ñoo waroon dimbali rek làmb ji ne yàggatul daf ñoo waroon dimbali rek may ñu tuuti rek lii jeex billaahi wallaahi tallaahi mais xam nga tey jii nii lii rafetul ay football di am ay boîte tëjuñu ko leneen ak leneen di am Sénégal fii dama lay wax gars yi làmb làmb moo fi ëpp doole fii billaahi wallaahi ay football yi nii yëpp amu fi doole làmb moo fi ëpp doole tey ji xoolal xoolal si tekeer nu mu dajale feenee ba tey ji nii nga ne loolu amatul xam nga loolu dafa metti lii am na leneen lu mu nar a si dëkk bi billahi wallahi dafa am leneen lu muy nar a jur président dafa ñu war a sarax rek dimbali ñu rek ñu bëree ñu loolu lañu xam ñu làmbale la ñu xam tey jii nii ku mel ni Double Moteur mii nii tey ji bu jugee gox jug ñëpp jug topp ko ñoo ba tey ji nii ñu ne tey ji nii làmb amul loolu dafa metti soxna si. ginnaaw li am am na par instant bi war jox conseil kii di Double Moteur lan nga koy wax. ah Double Moteur lu ñu wax moom Double Moteur lu ñu wax lenn la rek mooy na yokk entraînement yi rek ñun moom ñu ngi ñu ngi si entraînement yi saa su ne du ñu bàyyi si nu yàlla ñu ngi si entraînement ñu ngi si lépp sax ñu jooy quoi Macky Sall mu def du yoon waroon na bàyyi suñu combat bi rek barki yàlla. lenn rek la ñuy ñaxtu mooy Macky Sall na bàyyi mbër yu bëree parce que tam booy yi mënuñu préparer seen combat six mois ñu xëy benn jour arrêté affaire yi tam dafa métti quoi te suñu mbër bi ba mu jógee voyage yàggul léegi xaaj bu mu defoon day niil xoola booy ni ngi nii depuis boobu ba léegi ni ngi sonn tamit. ñun loolu rek la ñu amoon lu ñu wax nañ jàppale bàyyi booy yu bëre parce que booy yi si làmb ji lañ yaakaar amatuñ dara luñ def lu dul làmb ji loolu rek la ñuy ñaxtu. en tey jii ban conseil nga jox jeunes yi. non lenn laa leen di jox parce nañ ñun ñëpp ñoo war a mànkoo am na loo xam te ne ñun ñoo ko war a xeex tamit parce que suñu gouvernement bi tam sonal nañ ñu tamit quoi parce que chaque jour da ngay boo demee ba nga xamante ne jàpp nga dëkk bi neex na mu jékki-jékki tam metti loolu neexul tamit quoi loolu rek la ñuy ñaan tamit nañ ñu jàppale bàyyi booy bëre tamit loolu la ñuy ñaan. waaw di nuyu kilifa diine yi xam nga di ñaan Sénégal jàmm yàgg fii xam nga di nuyu ñu caabi féete ginaaw yàlla génne leen fi ñu nekk xam nga nekk si hôpital yàlla fëgg seen bopp xam nga di ñaan jàmm daal waaw affaire yi moom comme ni ngeen ko gisee rek affaire yi moom métti na métti waaye boo xamante ni moom xam nga kenn neexul kenn kenn rafetlu ko ñëpp la métti xam nga parce que tamit ku ne ni préparation combat dafa métti. xam nga rawatina tamit xam nga nga wàcc sa komba ba mu des ay 15 jours ay 17 jours yooyu xam nga ñu ne la annulé nañ ko dafa xaw a metti say bëri yoo xam ne xam nga gis nga li yàlla xam doy na waaw day day metti suñu côté daal waaw kenn rafetlu ko metti na trop daal waaw. léegi bi nga yégee loolu naka nga def ak sa ak sa mooy li nga gis nii rek xam nga naqar bu am rek ñoom ñoo ci ëpp parce boo xoolee lii rek da ko xam nga gars yi pare woon nañ tax drapeau yi xam nga daajaat asiko yi xam nga waaw daajaat ka defar ay asiko yu bees takk ay drapeau jënd ay takk ay banderole def lu ne xam nga di daleel ay xaaj ak lu ne ñu jékki-jékki gaañaan xam nga ñu ne la affaire annulé nañ ko dafa xaw a xam nga nga nekk si préparation gaañaan xam nga parce que combat boo xam ne at yaa ngi koy pare xam nga voyage ci voyage waa xam nga da si ay coono yu métti perte ci xaalis bul dul xam nga ñoo ba moment bi gàncax mu demee nii day dafa métti waa métti na torop. ci noonu nag combat bi annulé ko instant bi làmb amagul ndax xam nga fan la wanante mbëj ak gëtam da ngay delluwaat ci entraînement yi wala da ngay dellu ci métier ba nga nekkoon en attendant. waaw ciy nekk rek. ñun xam nga làmb mooy suñu métier ñun làmb la am làmb suñu métier mooy lépp dañ ciy nekk chaque jour ooy bu ñu amee bu ñu amul combat nekk si entraînement yi kon nag rawatina bu ñoomee bu ñu nekkee ci contrat xam nga parce tamit. ñu nekk si contrat mu lim mu yàqu tam teewul di nga bëree parce que tamit tôt ou di nga bëree moo xam mu yéex moo xam mu gaaw kon amoo dara looy looy xaar wala looy noppalu wala dara parce que ay xale lañ rek làmb mooy suñu liggéey kon dañ ciy nekkaat rek waaw. man de li ma gis si làmb ji moom mooy maanaam làmb dafa changé parce que li si waroon a am amatu ci làmb bu njëkk ak làmb léegi dafa sa diamétralement opposé làmb bu njëkk da am nit ñi ñëw. def si lu baax yéene nit ñi ñëpp am mais léegi làmb tey dañ siy def pour wut xaalis te loolu du avancé làmb Sénégal ñun suñu culture mooy làmb te loolu rek la ñu xam. relation bi noo gisee. bon waaw ni ma ko gisee mooy ñëpp dañoo war a bokk ndey bokk baay ñëpp di àndandoo di xàccandoo di dóorandoo loolu moom mooy arranger Sénégal mooy arranger ñëpp mooy arranger akku làmb. maa mënuñoo dimbale bàyyi combat bi jàll maa ngi soog koo soog ko aligné loolu daal laa si ndax diggante Bombardier ak Balla Gaye combat bu neex la rawati revanche kon dañoo war a bàyyi ñoom ñaan maanaam maanaam ñu leeral daal. Ah, affaire bi di ko méttiwul rek ndax ñu def seen xaalis dem ba ay dund kon mun ko annulé man dama koy méttiwul ndax day ñoom trop et puis nga xam ne dañoo dañ préparé. di entraîner ay mois mën naa sax un dem ba ay trois jours des ci combat bi yàqu loolu day métti trop waaw. kon bu leen mënee jàppale lu ñu ci mën a jàppale rek ak euh, matuwaay yi lu mën a jël ba man a doxal euh, combat yi loolu dama ji dama dama ci ànd. waaw làmb ji moom doy na waar. nee nañ feebar bee tax ñu annulé ko waaye man li ma gis dëkk bi moom feebar warul tax ñu annulé ko parce que xew-xew yëpp a ngi am. waaw ngénte yaa ngi am dëj yaa ngi am soirée yaa ngi am lépp a ngi am kon nag bu fekkoon da ngay da nga koy annulé war nañoo wax lu tax ñu ko annulé ko mais buñ ko annulé ba pare nag kon lépp loo xam ne day am si dëkk bi da ko war a arrêté parce que ay ndeyale yi bañ comme ndeyale yi am bañ nag buñ arrêté lépp kon dañoo war a arrêté lépp mais ñu arrêté ba pare continué waat continué waat ndaje yi loolu nag moo ñu si xaw a jaaxal. en tant que amateur lan ngay wax. ah li may wax mooy bu fekkee tey jii nguur gi mën na bàyyi làmb ji mu continuer ñu xool nu koy organiser ba gars yi di bëre parce que gars yi fii mbër yi fi toog bañ a bëre dafa bari soo xoolee boo xoolee Siteu ak euh, Papa Sow seen combat moo gën a métti ñëpp parce que daaw dem na ba de cinq jours ñu arrêté ko noonu ñu leen mënatu ñëw bëre tey tamit bii tamit ñu demaar ah kii ni nga waxatee ah parce que cinq jours rek dimanche gars yi arrêté ko bala ñu ngi préparé waat te bii lañ waroon bëre waat ñu ngi waat nii annulé waat nañ ko léegi loolu day métti si ñoom carrément bu dee mbëri mag yi sax garaawul ñoom dina am gannaaw mais bu dee mbëri ndaw yi tamit aussi day gën a métti si ñoom parce que du am fu ñu wéeru làmb lan yaakaar mënuñu see dund loolooy jafe-jafe bi moom fi mu toll nii mais fi mu toll nii moom lu gën a am solo mooy bu ñu arrêté nan arrêté lépp nan yemale lépp quoi waaw amul ko ma am day amul ko ma am mbaay nan yemale tout neex amateur yi de waaw ah oui parce que xam nga bu ñu sañoon xam nga préparé combat ay weer sans comprendre war a bëre dem bu ñu ne suba la ah, ñu aj làmb ji noonu neexul amateur yi c'est comprendre ba pare tamit xam nga neexul sénégalais yi mais nag xam nga xëy na nee nañ maanaam boo feebar dafa am c'est comprendre amul problème nañ waajalaat rek waaw nañ waajalaat am benn problème waaw mais neexul neexul loo xam ne neex na quoi. yow supporter man Balla Gaye man Balla Gaye mooy sama mbir waaw. Balla Gaye ah Balla Gaye mu dem defarwaat rek. waaw yow nag góorgóorlu rek parce que xam nga xëy na tamit xam nga lii ma gënoon tamit quoi c'est comprendre mais xam nga. métti na si ay weer nga dem nekk France sans comprendre di entraîner ah dem ba ñu nekk maanaam boog dimanche la ñu aj affaire yi waaw métti na trop métti na trop waaw ah mais nag dañ koy ñaanal rek waaw dañ koy ñaanal rek na gën a waajaat gën a préparé waat xam nga gën a ñaax ay supporteurs am xam nga xamal leen ni maanaam boog lamb la quoi waaw lamb laa way. nga yor journal bi nii ci nouvelle bi lañuy ñuy wax naka nga gisee annulation bi. waaw euh, bi ma ko déggee demb loolu Olof Njaay di wax dama dama dama feebar billaahi sama yaram yëpp a nagam mais sant yàlla ndax yàlla tuddal na ko bu yàgg ne lii lañuy def fii ngeen di yem kon dañ koy sant yàlla bu baax nag muñ rek xam ne lu jot yomb daal waaw. promoteur lan ngay ban message ngay lancé promoteur yi ak yan message ngay lancé mbër yi nga xam ne ñoo jëloon avance seen bëreewuñu. waaw ñu muñ rek xam nga wax lu ñaaw du tee liy am am kon nañ ko rafetal rek. muñ xam ne lii suñ borom moo ko ñi nga xam ne dañu loru la ci mbas mi ñu ngi leen di jaale ñi nga xam ne dañu tëdd feebar yàlla nañu wér Sénégal bi yëpp feebar bi jeex fii ban delluwaat suñu liggéey mais lu metti la nag muy mbër bi muy promoteur bi ba ci amateur bi ñëpp am lu leen metti mais nag dañ ko sant yàlla ñaan ñëpp ak ku mën a doon rek bu kenn wax lu ñaaw waaw ne Assane Ndiaye en tant que promoteur ci nekk day toog xaar mbos bi jàll wala dafa da nekk di xam di liggéey. waaw nag man man man même làmba après làmba yëpp maa ngi sam place fi lay liggéey quoi défoncé fi laa nekk ay feeraay laay jaay yu bees yu màgget et su ma jógee si làmb dimanche di xëy si naa liggéey si waaw. lan ngay wax mbër yi nga xam ne ci làmb rek lañ waaw ñu muñ rek xam nga lu jot yomb te li ma leen di dénk daal bu ci kenn wax lu ñaaw wala ñu def ko ci. ndax lii am moom am na ba pare mënoo wax lu ñaaw ba loolu ñëwaat mënoo wax lu bon ba loolu ñëwaat kon nañ ko rafetal rek lii am moom am na ba pare li ma leen dénk mooy ñu muñ rek liggéeyaat te yàlla nee na gémmañ gémmañ gu ñu xar moom dinañ ci def lu ñu lekk def ci lu ñu naan ba ba ba lépp di jot.